asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah man la Seydina Ousmane Dramé bu la réveil des dañoo bëggoon a wax rek jëmee ko ci CPI euh, nga xam ne Macky Sall foog mu wuy foog mu wuy euh, di leen xamal ne amnistie amnistie amut amnistie mënta am Macky Sall crime bii mu def crime humanitaire la crime la boo xam ne Nations Unies ci bopp moo ko war a lijjanti te dana ko lijjanti. waa CPI jot nañ kees gi danaa leen tegal itam ca kanam ca kanam conférence bi nga xam ne Juan Brandt def na ko bu ko dund boo ko déglu aku del akum xel fi réew mi toll dama ne foog ñu dégloo ko akum xel jëfe am xel te bala ñoo commencé nag dem leen jëli carte yi dem leen ngeen jëli seen carte yi carte boo ko amut boo ko amul doo mën a gagné élection ne ci mbedd mi yuuxoo ak xaru te jëlooy carte mook zéro ñooyam dem leen ngi jëli seen carte yi waaw affaire Macky moom jeex na takk jeex na takk dossier la boo xam ne waa CPI jël nañ ko Nations Unies ngi déglu Cour pénale internationale ñoo ñi nga xam ne yor dossier boobu fi Macky Sall dañ jëlee nervi xam nañ leen ay ñun créé la lu mel ne GMI bi nekk Thiès lu mel ne waa ASP lu mel ne les les les les les les marron feu fi Macky Sall daan tànn ay nervim ak di affecté ay nervim ak di leen former loolu xam nañ leen nervi yi nga xam ne ñoo nekkoon ci dëkk bi di troubler ak di yàq xam nañ leen seen moroom seen moroom de fonction moo leen di jàpp dama ne police police xam na lépp xam na lépp yéen ñoo ñu recruter leen jox cinquante mille francs par mois gouvernement bi wañ ko di leen jëlaat di leen fay overtime ngeen dugg ci dëkk bi di rey nit ñi di rey nit ñi dama ni ñi ci ëpp ñi ci ëpp ñi ci ëpp ñu ngi nekk gémi bi nekk ci Thiès ñeneen ñi ciy des mooy ASP yi ak ñan les marron ñooñu dañ leen a recadrer leen xam ñan la ak ñumu dama ni du ngeen rëcc dama ne bu ngeen doon téeméer téeméer cinquante personnes yi Ousmane Sonko lañu àndal te mënu ànd ak Sonko nekk ci koor bon lu bon ngay jëf lu bon ngay jëf te duñ la wone dama ne ku bokk ci gémi nga bokk ak foo mën a bokk sa am nañ sa lépp sa information yëpp dama ne am na si amut am na si doo ma sa am mukk tant que rek problème Macky Sall bii ak yéen ñi ñu jël suñu alal jox leen ko ngeen war a jàppale police bi ngeen war a liggéey ngeen waññi ko contre le peuple sénégalais li may xam ngeen ko vous les nervis xam ngeen ko fi ngeen bokk xam nañ ko koor yi ngeen jógee ñu release leen xam nañ leen su ngeen defee ne da ngeen rey doomi jàmbur yi dem toog ca seen ndey torox ngeen bu ngeen defee na yéen nervi yi da ngeen rey doomi jàmbur gouvernement fay leen suñ xaalis ngeen dundal ci seeni ndey du ngeen ay nit waaw moo tax yéen ñëpp CPI da ngeen da ngeen wuy ji dama nervi bu ci rey nit xam nañ koor ba nga jógee xam nañ ko fi nervi daan jógee xam nañ ko pourquoi Macky Sall créé ses polices xam nañ ko les marrons xam nañ pourquoi AFP yi xam nañ lu mu doon cinquante mille francs ponkal mu toll na yow ñu defee cinquante mille nga di ko nangu bu la joxee cent mille rey lu da nga ko rey da ko rey de te ñoom entre dañu leen entraîné waaw gémi bu Thiès li ma la xam ngeen ko defu leen waaw nervi yu bëri mi ngi làq foofu waa SP yi nervi yu bëri ngi ci biir maron fay ñëpp yi nervi lañ waaw bu ngeen làmb ji làmb ji soq yu ndaw yi soq yu ndaw yooyu yëpp ay nervi lañ waaw loolu na kenn du ko bàyyi mu dem Macky Sall amnistie du fi am te du fi masa am du fi am muk te kenn du ko nangu jémi booy ngeen préparé seeni morom yu ne ci biir doon ay patriote xam xawla xam nañ leen mën leen a rëcc waaw cour international bii nga xam ne fi lañ dugal Macky Sall ak waa këram billahi wallahi caaxaan du ko fa jëlee di tax Macky Sall bëgg a tëb amnistie ci loolu la jublu dem leen ñi ngi focus ñi ngi focus de ñi ngi focus dem leen ngeen jëli carte yi te préparé carte boo ko mun doo man dara nervi yi dem leen jëli carte yi ñu génne ci kaso bi teg loxo nervi yi nervi yëpp xam na ne ku ci mës a rek wala nga gont yi xam nañ la mën leen rëcc ci àdduna ma leen danaa leen tegal nag xalaat TV xalaat TV investigation bi mu ci def ak surtout lim tekkee Juan Branco li mu doon wax nu boo ko déglu xalaat TV. asalaamaaleykum asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, dama bëgg ñu bokk seetaan vidéo bi vidéo bu daw yaram la vidéo bi ñu bokk ko seetaan ay vidéo yu bari la yu bari la sax waaye euh, YouTube bi bëggul ñu dawal ko parce que neen jëfin yu dafa ñaaw waaw ma bëggoon bu seetaan ko ba noppi accusation yi nga xam ne moom la peuple yu def jëmee ko ci ñii 和依赖，和依赖，you。 Euh, dama ne ay vidéo ay vidéo ay vidéo la te vidéo yi mën nañ ko am fii fii lañuy gis lu bari lu baree bari fii à l'étranger fii lañuy gis lu baree baree baree bari comme cette nouvelle technologie bi dama ne lépp lay génne di xale yi foog ak ñi dëkk bi foog ñëpp foog ñii di liggéeyandoo ak police bi amuñu benn formation boo xam ne bu mat la dañ ñii dañ leen da bàyyi gémi ñu fay taxawaalu te ñu doon alkaati la ñu doon gendarme am ñoo xam ne ci marron feuille lañ bokk ci la ñu recruter ay garde corps ci lañ recruter ay nervi waaw am na ci yeneen policiers yoo xam ne euh, nouvellement lañ ko lañ ko créé police de proximité taf leen ci ci ci police bi ñoom it ils son confortables ci li ñuy def askan wi daal ñeme wuñ leen askan wi wóolu wuñ leen waaw moo tax il faut ñu liggéey ci ba xam ñi ñu mu doon ak luñ fi doon def ndax am na patriote yoo xam ne ñu euh, ñoom li ñu xamut mooy ay patriote ñu ngi seen biir li ñuy bari bari nii genn wàll genn ay patriote lañ yoo xam ne pare nañ pour netti lépp pour wax lépp bu soobee yàlla ñu ne enquête seddil ba xam yee ñan oh, ma ne am yu ko gën a ñaaw am na yu ko gën ñaaw oh, lu leer dana cee am lu leer dana am bu soobee yàlla am na lu ko gën a ñaaw mais loo ci defee YouTube bi génne ko loo ci YouTube bi ne lii du ma ko dawal lu salte ay julit ngeen di woy seen bopp ay sénégalais ah état bi leen utiliser ah? jox leen ni yet ngeen doon ay nervi di rey nit ñi ah billahi bu Ousmane Sonko jël toogee seeni moroom a leen di yeew seeni moroom yu ak gëm Ousmane Sonko gëm système bi ñi ngi seen biir dama ne kenn du rëcc yéen ñëpp dañu leen jàpp def ci kaso bi bu fekkee ne mérite ngi leen infiltré yàgg na yéen ñëpp ku bokk des na loxo dama ne ñi ànd ak yéen ñi ànd ak yéen ñu leen di jàpp enquête leen ak i preuve waaw amul gémi laa nekk amul alkaati amul dara yéen ñëpp daañu leen teg asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu mbokki Sénégal mbokki patriote ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di ñaan sun borom tabaaraka wa taala sun kàddu yi fekk ñëpp ci jàmm mbokki mu mel ne vidéo bi ma teg sama loxo suma paree dinaa ko release xam ngeen ne maa fekke moom bakkan lay laaj kii nee na am na onze onze mois ca kaso ba kii boo ko gisee rek xam ne kii du bandi nee na biñ koy mënoote ci mars bi ñëpp a ngi di ko fekk kon loolu lu dëggu la euh, lim na ay nit ñuñ fa dóor ba gaañ leen moo tax ma ne leen senegal dum réew Sénégal dund fa xaru la xaru xaru laa la wax de xaru gis nga Sénégal li ma leen wax ñaa ñaari at yu tegal léegi ñetti at yu tegal la ngi nii dem ma Sénégal lan moo tax lan moo tax dem ma fa pourtant mën na maa dem ay yoon yoon mënoon naa fee dem senegal waaye lu tax dem ma mooy li fee ay savants ñoo fa dëkk gis nga dem nga fa heure wax nga erreur rek jàpp nañ la rey la rey la wala ñu tëj la kaso te nag man wax dëgg yàlla yàlla daf maa teral kon du ma nangu doomu aadama di ma toroxal li rek si bi saa si wut Sénégal dama leen fiy bàyyil seenu dëkk parce que dëkk boobu boo déggee waa ji li muy léegi nag képp koo xam ne sa mbokk da cee gaañu def leen benn association constitué wu leen mbokk mbir mi bu mu yem fii mbir mi bu mu yem ci wax bu mu yem ci mettitlu nañ ko yóbbu cour cour pénal international ñu siisi leen waa ji nañ nañ ko jël à témoin mu wane waa jooji nga nga xam ne moom lay pointé xaw ma nan a ñaala xaw ma nga xam ne ay ñaawteef rek la fa doon def mbokk yi nan seetaan vidéo bi daw na yaram trop vidéo bi daw na yaram waaw. Cheikh Bara toogoon si benn émission ma ne dóor nañ fa nit yàlla mi yàqu loolu am na. mag yi waaye wax lu leer ñun ñun lañ doon ñun. waaye li Cheikh Bara toogoon si benn émission maa ngi koy dégg ma ne dóor nañ fa nit ba ay waay yàlla mi yàqu loolu am ah ay dóor nañ fa nit ba ay wala yàlla mi yàqu waaw ah, ci garde bi nga door xam naa dégg de la sant. moo ko kajje ba mënatut a dox nekkatul góor mën naa ne. parce que waaye yàlla yàqu na loolu am la am na foofu noonu. biir kaso bu rëbës fa benn patriot tamit ñaa moom tamit ma jàppoon na fa benn patriote door ko ba bu toj loolu am na fa waaw ah, gis gis nañ fa nit ku dóor la dëkk loolu man maa ko gis kenn nettali maa ko fekk parce que am naa fa onze mois kooru daaw ga lan ma jàpp kooru daaw ga lan parce que dem naa fa at kooru daaw ga lan ma jàppoon koor gaa nga waaj a dellu sot fii lan ma jàppoon si biir koor gi fii lan ma monote tamit ma waa marché baa ngi nii ñëpp ngi ñii ñu fekkee nañ ko ñii toog ñëpp fekkee nañ ko dañ may fekk fii dama monote di ma jël dama yóbbu si luñ tegul dara si luñ amul benn firnde xëy suba jekki-jekki wala nga ñëbbi jekki-jekki di waxaat waxee amnistie yow ay nit def lan nga atte leen lan ñu atte lan ñu yóbbu atte man na buñu may tëj lan ma tëj te bàyyi amnistie bi ko waaw bu ñu amnistie bu ñuy tëj nañu tëj. mais jàpp nit ci kaso bi dóor ko ba mu dee alors après yow loolu lan ngay wax seen i mbokk. ah loolu ñoom ñoo ko xam seen i mbokk nañ jóg lijjanti loolu loolu ñoo ko xam waaye du yor de en tout cas dañ laa dénk détenu bi ko du ko garde ko dóor ma fay ko. garde yi jël ko ba mu wàcc liggéey waaw parce que bañkat la ko xam naa parce que kenn dóor la wu la dañ laa yor loo boo mënul yor nga delloo. wallaahi dañ laa yorloo waaye kenn dóor la lool loolu yëpp fekk na ma fa. Diop tey mii lay wax yow dóor na ko fa dóor yi métti. waaw ba gaañ ko sa tànk ñëw sànni ko suñu nekk suñu sàmbur suñu sàmbur neuf. jëkkër ko fi baraage nan ko fa quatre fois. te lu ma fekkee yoo xam ne day jot a garde yi. Euh, asura mi tànk mi kaso la ko jëlee gis ngeen ko yéen. ba muy nekk si biti xam ngeen dara dalu ko. ba mu duggee si kaso bi ba mu génnaale ay beek la génnaale lan lañ ko def. lan lañ ko def. ak ñeneen ak ñeneen yoo xam ne dañ leen a duma te loolu tegul fenn. waaw ah, loolu dafay war a jóg te loolu dana fi jóg incha allah képp koo xam ne maanaam def nga si réew mi lu dul yoon danañ ko leeral garde yi nga xam ne ñoo nekk ci kaso bi amul kenn kon na ko sudul noonu boo génnee dana incha allah mu ngóor ko leeral très bien a yi nekk ci réew mi dafa war a jeex ci jàpp doomi jàmbur di leen ñaata nit ñoo des ci kaso bi kenn xamul nu mu toll Macky Sall génnewul dara man maa la ko wax. ah bon barke alquran génnewul tus kaso bi koo romb patriote la man maa la ko wax génnewul dara. lii de mooy càmmoñ ñaari junni nit ak lu topp la génne barki démb lu ngeen ñetti téeméeri nit ak lu topp la génne ñaari junni dul boo si bàyyi ñetti téeméer lan moo si def fa des ba tey Mouhamed Cissé maa nga fa des ba tey dafa feebar feebar bu metti ma nga ni ma waxee nii barki démb bi ma nga yóbbul bi ma nga yóbbul benn benn café cereeg yooyu noonu sàmb foofu laa ko yóbbu infirmerie laa ko yóbbul moo ngi infirmerie ba tey wax naa ba sonn ki jëf infirmerie bi foofu noonu si kaso bi jàllo chef jàllo nee naa ko booy bi dafa feebar jàppale ma si ngir yàlla nga bindal ma pour mu dem si siis bi ñu bàyyi ko mu ñibbi moo ngi nekk cabine siis waaye ba tey kenn bàyyiwu ko moo ngi si kaso ba tey bàyyiwun dara booy yaa nga fa ba tey Lamine Sané ak ah jàng nga fa ba tey Ibrahima Sawak booy yëpp ña fa ba tey Ibrahima collègue ñoo ñu ay Bilal Diatta ak ña nga fa ba tey kenn génn si waaw euh, sëñ kii kii Mbàkke sëñ Amdi Mbàkke waaw ah, sëñ Amadou Bamba Diop waaw ay amee Mohamed Seck. waaw ah, ñooñu ñëpp ña nga si kaso ba tey kenn génnu ci kenn génnu ci. génn Macky Sall génneegul dara bu mu ñu divertir naan ay détenu politique génn naag jàmm la bëgg bëggul benn jàmm bëgg dem moo ngi ni jàppaat euh, kii Touré nga mer ngeen jàmm loolu jàmm la bàyyiwul kenn kenn la bàyyiwul kaso baa ngi fees jàlle ba tey loolu nan ñun sénégalais nan ko xam te loolu nan taxaw pour ñu nekk ci kaso bi génn loolu mooy dëgg na bàyyi doomi jàmbur yi ñu dem kenn defu fi dara am na benn boy boo xam ne bu ma la waxee lu nga jàpp da ngay ba bëgg Ibrahima Koulé la tudd Colobane gi lan ko fekk muy jënd ay daal ñu ne ko noo tudd ma ne Ibrahima ko noo tudd ma ne Seck laa sant ngeen bañ ñu jàpp ko na ñoo xam ne seen sant la leen jàppee barke alxuraan manifesté wuñ defuñu dara gis naa borom taximaan boo xam dafa wàcc taxem dem di dugg këram ñu jàpp ko ku liggéey ba wàcc nga jàpp ko benn booy boo xam ne Alisini Diallo la tudd ñëw jugee génne ñëw fi am fi ñaari fan déggul wolof si kaso bi la déggee wolof bu wax ak yow ko teg ci kaso bi ñaari fan la am Sénégal ak yeneen ak yeneen ñoo xam ne manifesté woon am na koo xam ne patriote la carrément waaye nee ma barki alquran manifesté wu woon dama doon wàcc ñibbi waaye man patriote la Ousmane Sonko laa bëgg waaye damay lay wax dëgg rek dama doon wàcc ñibbi ñu ko teg ci réew boo xam ne dañ réew démocratie la eh, réew boo xam ne wax di jaay arrogance di yab di yab sénégalais yi xam ne sénégalais yi ko nekk sénégalais jël la fal la daf la njiitum naan ñàkk yi boole nga soxaloon ma maye ko jël seen ambulance di kii naan ku ya gedd yaay ay waxi xale yu ñàkk feere yooyu loolu loolu kenn du ko yërëm réew sëñ bi réew boo ko yor da nga yor si responsabilité ak ngëm yàlla loolu la yërëm waaye doo jàkkoor na nit ñi nga xam ne ñoo la jox réew mi di leen jaay arrogance di jaay yabaate di leen jaay manque naan leen ay boo leen soxlawul lii ma ne ku gedd sa yaay ale ku géewul li nangam nangam waxtaan nan waaye man maa yor dolag bi dogal bi mënu leen fexe jàpp élection élection yi maa ko war a jàpp xam nga man bi ma fekk sama place fii li ngeen defi woon di rey ak di këdd woon leen film bi seen i woon leen film bi seen i ndey seen da ñu dañu génn ci yéen parce que jur nañ lu bon lay yéen a bon tool yi ci àll bi ndox mi ci àll bi ah ñetti gémi ñeent ba ngeen doon fukk ah ngir ubbi benn projet dem bay ci ceeb bi balaa déwén ngeen doon millionnaire waaw ay ay ay dof nax leen ah jox leen i yet Marème Faye Sall ngeen topp koppar vingt cinq mille francs nga rey nit vingt cinq mille francs nga toj xuuri doomi jàmbur vingt cinq mille francs ngay këdde nit xoolal leen li ngeen defoon Marème Faye Sall jaru ko waaw kopp yi jëru ko assemblée nationale ci yéen lay luye day luye ji ay nervi ah, ci benn corps woo xam ne national bi ñoo ko moom ah defe lu baax lañ ci jublu teg yi ay reykat ngeen génn beneen invité yaa gën a de te action bu ngeen def ñun ñoo ngi nekk fi aux États-Unis am nañ vidéo yi lépp la ñuy am par la science artificielle google bi képp ci lu ñuy dugg reculer événement bi xool li xewoon ci aéria boobu yéen ñëpp lañu xam lay daañu tee waaye daañu leen def lu bon dañ leen di pendre dama ne ku ci doon nervi ñu jàpp la kooku CPI doo ci dem déedéet nu noo leen lijjanti suñu bopp peine de mort lay dellu si par force ci réew mi dama ne Ousmane Sonko par la force par la force da ngay delloo si peine mort peine de ñëpp dañ leen di wékk pendre ban sedd guy waaw ajjuma ju ne jar na rey téeméer par ajjuma du ngeen nit yi dara bi lay yéen a bon waaw seen bay réccu na lu mu leen jure yéen a ñàkk xorom ah man maa ngi liggéey gémi e, ah ma APA maa ngi di duul te bu guddee ñu jël la def ci ay kaar yu bu nga ay nit yéen du ngeen dem CPE du ngeen fa dem ñun noo leen réglé suñu bopp dama ñun noo leen réglé suñu yéen waa assemblée député yi daan jël nervi yi ay criminel ngeen ñoom dama ne ku ci mas a recruter am nervi dana ko wax Marème Faye salli ay doomeram yak sa njaboot gi du ngeen nit Moussa Fall Macky Sall yaa bon waaye bilaay bala ngeen tàggu Fran bala ngeen tàggu Juan Branco du ngeen tàggoog moom noonu de te du Juan Branco rek de ñun ñëpp ñun ñu nekk fi aux États-Unis liggéey bi ni liggéey bi lay walaay liggéey bi ni liggéey ak liñ ci xam Juan du ko xamee noonu ay citoyen américain lañ ni ci dëkk am droit à l'information daañu leen pendre bi ngeen poop yéen nervi yëpp waaw yéen néew yi da ngeen puub waaye dimbali ngeen jëli seeni i carte hôtel Diomaye dimbali ngeen jëli carte mi dakk ay wax mënu koo faj dem leen ngeen jëli carte yi bu ngeen jëlee carte yi Diomaye gagné réew mi bu boobaa nu daan mooy possibilité yoo xam ne daañu mën a offense attaqué ñi duma leen parce que ay doomeeraam lañ waaw ku ci rey nit ku ci nervi rek ba ñu mën a sa li nga defam ma naqari damay sa mag wala may sa baay wala may sa lépp wala may sa niyaay ba ngay dugg ci néer bi wa ma tàggu duma la ci dugal dem risatol bay ca ceeb baa gën wala nga ànd ak xal yi dugg ci gaalu Espagne gii booy dee ci ndox mi sax moo gën doon neer fi noo bon bilaay bilaay yéen a bon dem leen ngeen jëli carte yi dem leen jëli bu ngeen bëggee nervi yi ñu jàpp leen jàpp teye pendre pendre leen pendre ban sedd guy bu ngeen ko bëggee da ngeen jëli seen carte ngeen dem vote ji billaay li fi amoon dootu fi am may jégal bu baax a baax nag di jégalu bu baax a baax tey ñaan jàmm réew mi du ñëpp ay bokk lañ lu bon xaju fi képp ku fi def lu bon ku fi def lu bon billahi wallahi tu vas payer le prix ñun duñ nangu Ousmane Sonko di masla duñ ko nangu muy raam ñun yoruñu président buy raam déedéet président bi yor lu mu fit lañ soxla ku war a taxaw di jënti réew mi ñun war a pendre bari na te ñii ñëpp dañ leen wékk ban sedd guy ndax dañoo rey loolu l'islam digle waa maa ngi jéggalu encore tey ziyaara

you Euh, violence métti na trop lépp mënuñu ko wone ndax YouTube bi nanguwu ko même YouTube bi nanguwuñ ko waaw loo ci bëgg a dugal dañ koy génne waaye nag yàlla dogal na fii New York am nañ ay moyens ay camion lañ jël ay camion di def écran géant muy wër réew mi ay camion lañ jël def ko écran géant yu mag a mag a mag muy wër dëkk bi wër sutri rek fu ne gaare nañ fi li xew Sénégal ñëpp a ko gis jàppale leen yi jàppale sa bopp jàppale yi mooy jàppale sa bopp midi pile midi pile lépp sotti